bi kii la. Siteu rek. Siteu rek. yal nañu yal nee na yal nañu rek te Papa Sow gars yi ñu ko may dara. Ah. bilaay walaay def na lu nekk a daw mais ko tànk ba soobee yàlla. ndeysaan Siteu rek moo ñu jaral bak sëñ ñu bàyyi suñu lépp. ndeysaan bàyyi suñu liggéey ñëw taxaw fii xam nga. taa suñu moo ñu ko jaral. parce que moo ñu ko ji. dërët di jàmm gan mooy daw suñu yaram ñun daw ñu yoolee. lu leer ba mu jeex. bak sëñ Bamba jàmm rek. duma daan après lamb après lamb lay xam ñooy kan waa Sénégal di xam ni Siteu mbër la foofu laa yem waaw dafa dafa pièce gars yi parce laa gis parce que Siteu dafa pièce gars yi ba Siteu dafa doon ngémboo fële mais ren Siteu ngémboo fële dina demee kër maamam la ngémboo Siteu combat bi da koo jël au sérieux. kër maamam fu mu ne. nee nañ ma ni côté yi la nekk ma Basirou est-ce que du ñu dem ci kër maamam. Hmm. parce que côté boobu la nekkee. waaw ah, tey ba Basirou dama gis dama jàngal lu bëri ci combat bi nii. Hmm. dama xam ne Siteu dafay bëri li nga xam ne moo di combat boo xam ne as risque la ndax waa jàmbagoon dañoo booloo mais dama gis ndaw ñi dañuy dégager loo xam ne seen yaram yi tey jii damay ñaanal li nga xam ne moo di jàmm li nga xam ne moo di calme parce que lii ñu ñu ko di commencé fii nii ba suñu ko jëlee ba nga xam ne moo di koy sànni gëm naa ne dootu yomb. te loolu dañuy ñaanal comme nee nañ ne làmb ji dafa bëri li nga xam ne moo di violence donc taw ñi dama leen di woowaat nañ nañ calme andiwaat li nga xam ne moo di jàmm. Siteu seen mbër la nañ ko ñaanal bu mënee na dem def li ñu mën passé aussi la passé aussi la même chose aussi. nañ ñëw ñu andi li nga xam ne moo di jàmm parce que jàmm la ñuy ñaan. jëlal ndaw ñi jëlal xale jigéen ñi jëlal jigéen ñi tey suba maa ngi remarqué benn affaire dañoo am benn kóob boo xam ne dañ ko balaat dañoo toog benn benn téléphone boo xam ne benn li nga xam ne moo di ay bagages loo waaye est-ce ñu jëm nii yalmin bi moo eh, ay bi sita borom dëkk bi man la demee est-ce que dañuy dem ah, yoo xam yëngal oto engin xolo ay ni gars yi dox sax di dem la ala

daa mel ni dëgg waaw loolu kese amul leneen. yéen pare ngeen. pare ñu pare faral la. yow da ngay daw bay sax xanaa. est-ce que. kon pare ngeen nag jaay. ah waa jéem a <laughs> man booy jàmm nga ni dama leen a bëgg Baye Fall lañ man man yalmin nee naa la na booy yëpp ay yalmin léegi léegi booy yëpp léegi. yalmin lañ ko ah man Baye Fall lañ non booy yi man booy yi dañu gën a booy jàmm di ñëw dañu dañu koy waar. keneen di ñëw di salté suñu dëkk déedéet dootuñu ko nangu nga naan jàmm ga néew nii jàmm ga ñu fi nekk ay booy yu dynamique ñoo fi nekk ay booy yu bëgg a terrassé yaay ñoo fi nekk ay booy yu am jom ay booy yu nga xam ne chaque jour dañuy dem daayra lundi kon ñooñu amuñu jot def dara mais nit ñi ñooy jóge fee ñëw di salteel loolu dañ koy bañ léegi moo tax combat bi doo fi dégg lu ñaaw doo fi dégg dara dañuy dem ci ko cërum ak pare daan ko bi waaw comme man dama jàpp ni Papa ko ndax boo xoolee ba Siteu di bëri premier combat xam nga deuxième am la Siteu bëri doon def cadre yoon ay bàyyi xale yu mu dem kàttanu la àndal ñu ngi koy dagaan ñu ngi koy dagaan bu fekkee ñun ay taalibe Sëriñ Saliou lañu ñu ngi dagaan suñu borom moom bi waaw bi waaw bi bi waalo jóge tey noo gisee tey mbir mi tey ni mu yeewoo su dee su dee Bambal ñun Serigne Touba moo ñu teete wan ñu yoon dañu xam yoon muy waxee balaa moo wax sëñ bi lay tudd jërëjëf jërëjëf Serigne Touba moo ñu teete si dañ lay waar rek rafet na ana mbër te nu mu yeewoo sant rek sant akal rek le moral est bon ñëpp sax ñu ngi rek boo gisee mbooloo bi bu ñu soulagé. waaw booy jàmm dem ci jàmm ñu ci jàmm. suñu mbër lan la ñu wax. nañ sangu ba set. sol lu rafet. ñu dem stade ñu mu yëngal ñu suuf. jeex loolu la ñu digal. digal leneen ok. sànq yaayam gis na ko muy dugg. kii moo koy sotti ndox. kii nga li nga la kii moo koy sotti ndox. donc à chaque jour moo koy sotti. sa sa combat. sa combat moo koy sotti ndox. waaw bu nekk nii wax dëgg la rek. waaw foofu rek.